Touba Taïf Karo nekk fii ci Grand Yoff en face hôpital CTO Taïf Karo nag Jibi Bamba mooy gérant bi ah mbokk yi Touba Taïf Karo nag kenn dootu leen ko présenté ci biir réew mi lépp loo doon wër ci wàllu karo yu baax gaawal gaaw ñëw ci suñu biir place bi di Touba Taïf Karo nga mën fi fekk ay karo italien karo espagnol wala karo indien ngeen mën fi fekk ay karo poli 1 pour seen ay salon wala salle de conférence ngeen mën fi fekk ay karo décoration finition yu amul fenn ay carreau faïence pour seen ay cuisine wala seen toilette ay grès poli soixante soixante ay plinthe wala ay baguette ba ci ay carreau parquet lépp am na ci biir Taïf Carreau ay carreau espagnol soixante soixante wala quarante quarante marche escalier wala contre marche ah mbokk yi lépp loo soxla ci wàllu matériel sanitaire gaawal gaaw ñëw fii ci Taïf Carreau li ci gën a neex mooy Taïf Carreau defal client yi promo boo jëndee carreau yooyu dem ci kër gi yépp fii ci Taïf Carreau nee naa la matérielu sanitaire ñoo la koy offrir defal la ko cadeau muy siège anglaise lavabo ba ci lépp luy taaral salle de bain waa Taïf Karo dañ la koy may moo xam kër gi nekk niveau un niveau deux wala niveau trois Taïf Karo nag am nañ beneen place bu nekk fii ci Cambérène ah sama mbokk yi yéen ñi nekk ci diaspora bi am seeni sànca fii ci Sénégal bëgg a karole seen kër ba mu mucc ayib adresse bi fii dong la ci Touba Taïf Karo gaawal jël suñu numéro téléphone 77 745 60 76 88 wala 76 923 33 ak Touba Taïf Karo ñooy number one ci wàllu jaay karo. Valdo Boy Dakar ñaari yaa ngi leewaatoo Valdo ngeen jàkkaar lool moo ngi moo ngi amul weex li Boy Dakar ban leen ginnaaw ña moo ngi amul vert li journée de Bawal production ndeysaan. Boy Dakar Valdo il est actuellement 18h40 ñu ngi fii ci Dakar arène Valdo ak Boy Dakar ñaari xale yaa ngi lewaatoo ba tey dara xewagul ndeysaan Valdo Boy Dakar ñaari xale yaa ngi lewaatoo Aldo Boy Dakar arbit nee na leen bëre leen arbit nee na leen bëre leen Boy Dakar Man xale ya ngi lewaatoo Boy Dakar sigini tek taxaw di ko xool Boy Dakar leewtoo ba tey dara xewagul Valdo ngeen jàkkaar lool mu jiital tànku càmmoñ Boy Dakar wal leen ginnaaw jiital tànku ndeyjoor at bi wan na ñaari xale yi nee leen ñëw leen ci digg géew bi te ngeen taxaw bëree ar bi nee leen ñëw leen ci digg géew bi te ngeen taxaw bëree diggante Valdo Boy Dakar ndeysaan xale yaa ngi lewaatoo ba tey Ngando jiital tànku càmmoñ Boy Dakar jiital tànku ndeyjoor ndeysaan Boy Dakar ba tey dara xewagul bëre leen grand combat bi war a dox ci diggante Cheikh Ngewel ak armée bu super jamono. combat bi nekk avant grand combat bi di combat spécial bi di dox ci diggante Vallo ak Boy Dakar. arbitre jox na avertissement ki nga xam ne Boy Dakar. arbitre jox na avertissement Boy Dakar. war na ñaari xale yi ci digg géew bi. ndeysaan ba tey dara amagul. xale yi bëree wuñ bàyyi Valdo Boy Dakar ñaari xale yaa ngi lewaatoo Ngaldo ngeen jàkkaar lool Boy Dakar ñu wet ñu ngi wet Ngaldo ak Boy Dakar ñu ngi doxee Ngaldo Boy Dakar mbem na waaye ñëwul Boy Dakar taxaw na ñu tekk di xaar Boy Dakar nag ak Ngaldo ndeysaan Boy Dakar dema na ci saaku yi taxaw déplacement yi muy def laa xamul pour lan la taxaw leen bëree taxaw leen bëree Maldo eh, dóor na waaye dalul Maldo dóor na waaye dalul Maldo dóor na Boy Dakar arrière dem ci saaku yi da ngay doxee ba ñoom ñaar Boy Dakar fayu na waaye dalul Boy Dakar dóor na Boy Dakar dóor na waaye daalul Valdo Boy Dakar ñu ngi bëre ci saaku yi Boy Dakar dóor na Valdo toog na Boy Dakar dóor na ko mu toog Boy Dakar dóor na Valdo mu daanu Valdo dóor na Boy Dakar mu daanu Valdo dóor na Boy Dakar mu toog Valdo dóor na Boy Dakar mu toog Valdo eh. dóor na Boy Dakar mu toog Boy Dakar yaa daaneel sa bopp. di bëre dem bañ a saako ya taxaw daanoo rek yaa daan sa bopp looy def ca saako ya laa xamul Mal dóor mu toog da ko da koo dóor mu toog cey làmb cey làmb loolu daan na booy Dakar loolu daan na booy Dakar. waaw ma ne xale 2012 laa ñëw si làmb ne xale bu ndax samay morom nangu ñëw bëri ak man ñii waruma bëri ñii 120 kilos 130 kilos laa war a bëreel ma ne xale xale bu dem boppam ne xale bu ndaw comprendre ñu may seetaan may toog ay 4 ans du ma bëree comprendre te samay morom nekk fii te ñuy coow nii sa waay sant yàlla bu baax di nuyu ñëpp xam di nuyu presse bi di bu baax. sama ba juumul mooy cinquième kaaw xaw ma. mais yi ngay kaaw appel dama ko appel ni dafa njëkk a ñëw ma freiné ko ak góos mu kaaw ma xam ne na ma bàyyi ko xam sama tànk lay ñëw te man maa ko doon pour mu ma fa mu ma ko mu ñaanal bu baax parce que dafa bari envoyé ma ko si combat bi comprendre nga di ñaanal waa Pikine ñëpp comprendre nga di nuyu bëri afia waa bëri afia di ko nuyu bu baax kii dafa bàyyi léppam comprendre dafa bàyyi léppam bëri afia di ko ñaanal bu baax dafa bàyyi léppam mu ànd ak man mu neex mu ànd ak man bëri afia maa ngi koy gërëm bu baax am bu Pikine di xale xale bu ndaw comprendre nga bu baax a baax lambu Pamrana ñu may seetaan bu baax Pamrana di nuyu ñëpp di nuyu mbir yi aas yëpp yi bu baax. ñastaraan di nuyu ah. non man essayé na maa ngi xool waaw waaw waaw man la de. ñastaraan ñastaraan ñastaraan. nuyu. waaw fi may jëm mooy xam ngeen ko. man la dëgër. la dëgër mais na ma may sens. waaw.